rasulullah salaamaaleykum euh, mbokki waa Sénégal seen xarit seen doomu nay maam Makhtar Gueye bu ONG islamique Jamra mooy yëkkati kàddu jëmale ko ci askanu Sénégal gi yëpp waaye d'abord di leen euh, ndokkeel ci bés bu tedd bii di bésu euh, mawludul nabi di bés bi ñuy jagleel juddu gën ji bindeef te kii ma dendal suma sama grand sama nijaay Mouhamadou Lamine Ndiaye bokk ci turandoom kon nag bés bi dafa am un double sens mhm. seet si naa sama xarit Mouhamadou Lamine Ndiaye ci bés ba nga xamee turandoom lañ ko jagleel di Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wa sama tànk tey fii nag tànku mbokk rek ndax euh, Mouhamadou Lamine mi réeréwu leen mbir ni Abdoulatif Guèye rahmatullah alayhi moo ma moo ma ko présenté. ca ban at 1988 ndax jamono booba suñu organisation ci wàllu sensibilisation ci danger wu drogue dañuy amoon benn formule très pertinente qui a été approuvée par l'État du Sénégal mooy organiser des concours de poèmes de sensibilisation sur la drogue au niveau de dix établissements scolaires avec l'accord du ministère de l'éducation alors su final ba jotee. il fallait ñu sélectionner les dix meilleurs poèmes sélectionnés par le jury qui était dirigé par euh, John Wakam yàlla na ko yàlla yërëm bu ko defee nag jour juin nga xam ne Nations Unies moo ko décrété journée mondiale de lutte contre la drogue ci la ñuy wala liir sur les dix poèmes le meilleur poème yàlla dogal nag Lamine Ndiaye ñii moo daan ñëw bénévolement devant Sorano plein à craquer ministre de l'intérieur et des hautes autorités de l'état moom moo daan jàng poème boobu foofu la ñu fasante ak moom paas sax daawul nangu ku ko jox foofu laa njëkk a yéemu si désintéressement ak tamit son esprit de don de soi fa lañu jàppee la ñu fukki loxo ak benn 1988 ba léegi ça fait quand même 34 ans 34 ans c'est pas 34 jours yàlla dogal itam coow li am du coow sax waaye malentendu bi rek la digganteem ak kuréel boobu ñuy wax soleil levant Cheikhou ci boppam itam yàlla dogal na kóllëre la ndax ba ma président Abdoulaye Wade joxe foire bi ma nekk le président du conseil d' administration chaque fois bu mois de décembre jotee comme c' est de coutume dans toutes les entreprises ñu war a jox aux enfants des collaborateurs ay cadeaux de fin d' année cérémonie arbre de Noël boobu dañ daan soxla animateur pour bégal xale yi. alors ba directeur général bi euh, Beydi Souleymane Ndiaye. xam naa mu ngi may dégg di ko nuyu di ko ziar mu ziaral ñu tamit mbokk waa Kaolack yëpp dafa ma doon tooñ ne ma waaw PCA dama gis tout temps ce choix nga di ko porté ci Sanex xanaa li ngeen bokk sant la ndax li mu tudd Cheikhou Gueye ma ne ko non non ça n'a rien à voir au mu nekk sama doom baay waaye dama dama gis ne yàlla may na ko benn benn talent boo xam ne tout en amusant les enfants daf leen di inculquer des valeurs civiques et citoyennes 2008 la ça fait combien du 14 waaw kon ku am loolu. kii 34 ans que les 14 ans est-ce que am naa droit ma dégg ci réseaux sociaux yi mais am na fantasiro bu am seen diggante est-ce que am naa droit toog naan sama yoon new ji wala seetaan moo dàq ci ndaje aw ma droit ngor nanguwu ko hmm. moo tax ma jóg sol suma dal ba ma jógee nag laajte ci loo xam ne yëgoowuma ci ak Lamine yëgoowuma ci ak Saneex sama initiative bopp la ma laajte lu xew nee dañu seqoon dafa am lu ñu diggaale woon ci wàllu liggéey muy benn série bu ñuy wax Diamond House Lamine njaay nag ak qualité yi ko yàlla may ci ci métier boobu gars yi soxla woon ko mu defal leen prestation bu mucc ay ba ñoom seen bopp sax ñu kontaan ci alors léegi nag la ñu waraloonte woon ak moom xaw a tardé ndax tubaab dafa ne tout travail mérite salaire bi mu xawee tardé nag. interprétation yi commencé ñi naan mbaadu dañ ko bëgg a forcé mbaadu dañ ko bëgg a nangam ma ne nañ leen teelu te maanu ah ñu daal di jëfee loolu sanga bu tedd bi di wax wama shahid na ila bi ma alib na le croyant ne doit témoigner que ce que de ce dont il est de science certaine loolu laay jëfee ma daal di dem à la source di saaneex yàpp naa ko parce que suma jarbaat la sama doom doomu ndey la daal di ko wax loo xam ne xam na ko parce que réseaux sociaux yaa ngi ci doon wax mu waatal ma ñu mu waatal ma ñu seen principal sponsor damay bañ tudd turam pour ne pas le gêner recevoir na facture bi le 27 septembre bii kon tey jii may wax ak yéen le samedi 8 octobre mu ngi doog a def 10 jours te comme que interbancaire il faut au moins deux semaines alors mu ne ma. semaine week-end bii bu jeexee bu gàmmu gi passé ci lañ koy positionné seen compte ñoom ñu doog fay prestataire ndax du Lamine rek la ñu des amel waaye am na deux trois autres yoo xam ne jarul ma di leen loolu la ma Sané wax ma ne tubaab nee na la confiance n'exclut le contrôle ma fexe ba am numéro de téléphone sponsor jox na ma ko sponsor bi léegi laa ko woo ci kanamu Mouhamadou Lamine Ndiaye mu confirmé na ma ne effectivement jot nañ facture effectivement def nañ virement bancaire normalement ça doit durer un mois balaa ñu koy positionner ci compte Soleil Levant waaye compte tenu de la situation de la délicatesse de la situation te ñoom ci ñi ñu ameel xaalis Lamine mii donte le nee na ñoom ay jarbaatam lañu ay doomam lañu daf leen koy baal maa ne ko ne d'accord ndax da nga nekk en convalescence te moo moo sa bopp danga am yu doom am yu jarbaat c'est un homme très désintéressé ma ne ko d'accord ma nga bàyyi ko ñoom alors dontele euh, Lamine mu am ko ak mu ñàkk ko am benn la alors ndaw si nee na comme que Lamine dafa ne en convalescence moom dana tax mu gën a yokk ay jéegoom pour que au plus tard bu ñu génnee ci week-end gàmmu gi semaine bi ñuy dugg mu mu def virement interbancaire bi def na ko sax waaye ci la virement interbancaire bi di dugg ci compte Soleil Levant Soleil Levant doog a mën a jël prestataires yi nga xam ne dese nañ leen xaalis kon mbir mi loolu rek la fantasiro amu fi lu ñaaw amu fi dafi sax xajul ndax ñoom ay mbokk lañu c'est des partenaires de très longue date alors loolu taxoon nag ma ne danaa yëkkati ay kàddu euh, kiy filmer sax ngoonee bu Dakar Buzz la <laughs> danaa ko tudd Africa 7 bu Africa 7 maa def exprès euh, tudd ndax moom i tamit euh, ku jege Mamadou Lamine Ndiaye la euh, Lamine daf ko jàppee comme doom bu mu jur ci deretam alors moom itam euh, fii lañu ñëw ci kër Lamine fekk ko fi rue 3 ci Médina mu bokk ñu même préoccupation voilà waaye indil naa Lamine sur le yëpp pour wane ko ne le virement est déjà fait euh, incha allah bu we gàmmu gi weesoo rek dana dugg ci compte la Levant alors ba ma woowee Sanex nag ne ko quest ko que vous comptez mu ne duñ ko ko virement duñ ko Wave duñ ko wari duñ ko orange money man maay jiite délégation soleil levant teg ko ci loxo maa ngi koy tooñ sax ne ko seen bàyyi la dafa nekk convalescence bu leen yem ci di ko jox cachet rek na ngeen cotiser am loo leen ci dolli comme que yaa ma ko wax danaa ko def voilà kon nag mbokk yi internautes yi euh, lu metti yàggul euh, déficit de communication rek la woon kon nañ ko sante yàlla ndax àndandoo boo gis léeg-léeg muy am ay friction léeg-léeg muy am ay moment de de bonheur ay am ay de de de d'inquiétude voilà loolu mooy àndandoo mhm. sanga yu bu tedd sax mucc ci loolu ndax moom nijaayam bi nga xam ne deretam la muy ab abu laxat eh, daan na am ay fantasiro ak moom loolu fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi kon nag eh, Mouhamadou Lamine li may ñaan tey mooy yàlla leen yàlla lafal cat mhm. yéen eh, secteur cinématographie et audiovisuel parce que xam nga ñoom dañu defe ne Jamra saawu duggee ci mbirum audiovisuel rek c'est pour porter plainte oh. <laughs> contre infidèle ak i maîtresse d'un marié gis nga benn kaa ngi di ñu ngi nii ñëw di dox tànku jàmm de avant lii il y a 30 ans ñu nag Cheikh Tidiane Diop la woon moom il nous avait impliqué dans la rédaction du scénario de son de sa série là qui qui, qui était une réplique de Bax Yamba waaye daf ko adapté woon au petit écran daf ñu daan booleel ñu toog ci salon di waxtaan di naan ataaya voilà kon nu sommes les partenaires des acteurs du secteur de l'audiovisuel et de la cinématographie lii wane na ko tey parce que lu leen metti metti nañu foo leen amee bànneex suñu bànneex la parce que yéen yàlla dafa leen dénk un outil très puissant mu di l'audiovisuel autant mën ngeen ci formater les consciences citoyennes euh, Sénégal am ay citoyens yu baax autant le revers de la médaille vous pouvez détruire une société voilà moo tax chaque fois bu ñu gisee Lamine ak créativité bi ko yàlla dénk mu def prestation boo xam ne luy jëriñ askan wi la jëriñ réew mi kon Lamine yal yàlla fëgg sa bopp delloo si la sa sabo na la yàlla sàmm aar la may yow ak jarbaat ñoom Cheikhouna ñoom Aziz ak ñoom Saneex yal na leen yàlla lafal cat yal na leen yàlla dàqal seytaane yàlla na yàlla def jàmm ci réew bi te làq ñu Sénégal fu yàq yeggul wa salaamu aleykum wa waaw xam nga wax ju rafet moom daanaka presque kenn warut si teg leen muy njëkk def mooy gërëm la sant la di la ñaanal yàlla tànk yi ngay jóg Sénégal yi yëpp xam nañ yëpp dox diggante yi la ak ñu diggante ba mën ci mel yàlla na la yàlla fulal xam-xam boobu euh, noot la ci biir ba xam ne nii dana mën a jëriñ Sénégal yi yëpp mm. parce que mbir mu ci nekk rek am na njàngat man nag damay wax euh, vraiment ne suma digganteeg ñoom dama fas yéene woon gas pax bu mu jël lépp suur Italie parce que dama fa am doom boo xam ne nii prise en charge bi moom ko naa jëlal donc euh, loolu laa doon waaj euh, ci yi may def man fonto uma alal yi may am lu mu tuuti tuuti mën na ma jëriñ jëriñ keneen fii bunt bi dañ leen fi ubbi mais d'habitude ku ñëw solo suñ ma diisee soxla boo xam ne nii yàlla mi ñuy tiim mën naa ci def dara je n'hésite pas à le faire man naqari ci bi mooy c'est les réseaux sociaux ay nit yoo xam ne xamuñ ma tey xamuñ ma ëllëg jàpp sama tur yi di ko nawti hmm. surtout bi ñu génnee image boo xam ne nii. Hmm. dama doon jooy te la ma doon wax ba mu jooy dëgg la dama gëm Sénégal. sa sensibilité la gëm Sénégal. dëgg la dégg nga ba nga xam ne nii jaaxale euh, ci li nit ñi inventive yi ñuy def. Hmm. ak li may seetaan assemblée nationale. dëgg la ñu du ko waxtante xasante yeeg yooyu te jaru ko. te jaru ko bu fekkee ni réew mi tax rek ñoom ñuy jóg. loolu moo tooyal sa xol Mm-hmm. billaahi wallaahi talaahi loolu moom ma jàpp ba nga xam ne nii sama mm-hmm. rabo ñu fa jékki-jékki rek tuuru dëgg la mënatuma ko téye parce que moom ma sama bopp dëgg la donc euh, ñu nekk di kawti kawti naan góor gaa ngi jooy góor gi màgget na léegi nangam nangam te ñu ko lii te ñu ko laa te dara amu ci ñàkk xam rek création dëgg la euh, loolu suñu loolu touché woon na la mais yow yaa mel noonu sa sensibilité gis nga lañu mm-hmm. li baat bii d'ailleurs c'est une des meilleures dictions dans l'audiovisuel boo gisee publicité yi même radiophonique boo gisul xar kanam déglu ko rek mhm. foog publicité bi captiver la ndax yàlla mooy maye moo ko may une voix magnétique alors moo tax dama ne Lamine ndekete li baat bi xuur yëpp kii yëpp ndekete xol bu nooy nepp la mhm. c'est un homme extrêmement sensible boo xoolee apparence am déglu baat bi da ngeen kii de bu bu lay bëgg bët rek ngay daw waaye xol ba. xol bu tooy xol bu nooy nepp la. nit ku am yërmande la. ci ñëpp nag këram gi amul protocole ci kaw ba ci suuf fu waay jógee ak sa soxla gis ko ko bu ko amul day génn leb ko jox la kon nag Lamine yoon boobu nga jaar bul ci jóg. yàlla nañu la suñu borom saxal la ci yàlla la suñu borom jàppale sa njaboot gi yàlla la suñu borom saxal ci kanamu njaboot gi ba mu yàgg lool ba nga fekk njëriñu say sët say sëtaat ak say sëtaat ba ñu sàppi ci yow yàlla yéex lool yàlla yàlla yokk wér gi yàlla yàlla dëgëral sa diggante ak say partenaires du secteur de l'audiovisuel et de la cinématographie yàlla leen yàlla dàqal seytaane yal na yàlla def jàmm ci réew mi te làq ni Sénégal fu yàq yëgul wa salaamaaleykum wa rahmatullah la ilaha illa allah muhammadun rasulullah